marichu li ma ko xamal am na lu mu def loo xamanteni lu kenn yëgul bis bu ma ko waxee sëyam tas yëfam dem nga ni ma gi waxu pot moo ko ñëw loo bëgg ñu wax ñun xanaa du dëgg kan moo la ñëw du pot pot la ñëw ba léegi ah da nga poté ba léegi wuyu ko du ma ne déedéet allahumma salli ala sayyidina ay jeunes lañ ñu on comprend da nga bëgg pot ba léegi hein? Tola ne sois pas jalouse. Hein? ne sois pas jalouse. je me suis promis ça..! tant soit peu laps de temps bon mon ti am naa ko passé ak moi... pour la rendre heureuse et souriante.